asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwan wa tamkin alhamdulilahi lazi minna talab ixlaasa saayin wa muraatul adab man yansuru alxuluba wa saraira duna lazi minna yakunu zahira summa salaatu maa salaamu yatbaaha ala lazi fina gadan yushafaa man bi fadaa'ilil hudaa tahalla wa arrasaa'ili radaa tahalla eh, bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki M-Media Group Nourou Darayni ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ci di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal nu jàmmi àddina ak jàmmi alaxira ci ba Seex naan Xadim ñoo ngi ñaanal Seex Mahmudul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak ak wala yim yéene liggéeyte liggéeyal lislaam ak njabootu lislaam suñ borom àggale ko fukkaw njortam ci war seex naan xadim kon fas yéene dikkaat ak yéen ci sunu jataayu jigéen ñi zaadi nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne ñoo ngi ci laayante biir ak di ci fàttalente di ñaan suñu borom defal nu ak dégg defal ak topp waaye defal li nga xam ne moom la lu ñuy fàttalante eh, kenn bañ ñu ci amoon waaye li ñuy laayante biir kenn itam bañ ñu ci jiitu di ñaan suñu moom defal mu tawfiq zahir ma baat na mel ni jotaay bi nga xam ne moo passé ngi woon ci ci li nga xam ne mooy ndénkaan yi nga xam ne moo war ci diggante jullit bi ak moroomu jullitam ci di moytandiku moytandiku jikko yu ñaaw ci diggante jullit ak moroomu jullitam lu si sa bopp ak kawe yéene sa mboomu ak suufe yéene sa bopp ak jàll yéene sa mbokku nga yéene sa bopp ci xéewal ak lu baax lépp nga bañ koo yéene sa mbokku julit te nag loolu du melokaanu julit ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax kenn ci yéen du gëm lurul ni li mu boppam daf ko yéene moromam kon jullit bi fu mu nekk rek war nay yaatal yéeneem di ko yéwénal euh, la yéene boppam ñaan mu yéene ko mboolem jullit ñi ndax suñu borom subhanahu wa mi nga xam ne mooy fay euh, ak fayam ak kàttanam ak yërmandeem akub sañ-sañ yëmul fenn kon ni nga yéene sa sa bopp boo ko yéene mboolem jullit ñi suñu borom mën na la ko jox ba nga doyal sëkk waaye jox ko mboolem jullit ñi te du yàq ci eh, sa sa sa jox jox dara kon jullit bi war nay war nay fexey dafatal yéeneen ci mboolem jullit ñi waaye bañ di xeex mbokkum jullitam bañ di rayante ak moom bëgg ko del ko ginnaaw waaye moom mu jëm ca kanam waaye bañ koo ginnaawal bañ ko ginnaaw bañ koo tongu bañ koy mere ak donte mer mënta ñàkk waaye ki ngay mere nga fexe ba mer mi ngi di mere bala mu am ñetti fan ngeen yiifoo ngeen delluwaat fa ngeen nekkan su ngeen mënti delluwaat fa ngeen nekkan bu amee keneen ku dikk def islaax seen diggante ngeen topp ko ci li wax te bañ a topp seen bopp bañ a mer bala ñetti fan yi passé ndax bu ñett fan yi passé ku ji ci faatu mën naa am alkande ci diggante mook boromam waaye bokk na ci bañ a jëw sa mbokkum jullit ndax jëw dafa xaraam ni ko alquran karim waxe leer na ni ko xadis yonent bi alayhi waxe leer na ni ko Sëriñ Tuubaa firile leer na waaye itam bañ di foñante bañ di foñante diggante jullit ak mbokkum jullitam ndax loolu bokk na ci li xam ne mën na lay alak mën na lay yàqal bare bare bare ak sax mën nga ko bañ xam waaye bokk na ci wal tub julus yuuxa wal kabira wal tarxamul ab ay taama was wasixaara bokk na ca ngir màggal ngir màggal mag asuyuuxa ñu ko waxee tekki mag day tekki kilifa ngeen mag mu ngeen gis ngeen wekk ko jox ko ko ni xam ne ni nga bëgg ku jëflante ak sa wajur nga jëflante ak mag moomu wekk ko ci say wax wekk ci say jëf bañ ko jàll bañ ko jiggi bañ ko wax loo xam ne lu koy lor la ndax waxir kabir walaw raaytuhu daifat wa axir mag moo gis nanga ko wekk jox ko ak cëram donte danga koo gis mu xeebu te doy di lool ndax wa kun maana si jamian dahraka kama tuhib an yakuna maaka mag moo gis rek na nga xam ne bàyyi jàmbur la kon loo bëggut ko def si ku ko def sa way jur ko def way jàmbur naka noonu bu dee jigéen yaayi jàmbur la loo bëggut ko def sa way jur ko def way bu dee mag kazalika bu dee rak bu dee keneen ak keneen wa kun maa naasi jamii'an dahraka kama tuhibbu an yakuna maaka su bëggee say way jur bëgg ku wek say mag say rak say àndandoo say say lépp rek waaw koo rek na ko wegal ay waajuram wek ko ay magam ay rakam ay àndandoom ay léppam loolu mooy bokkun maana si jamian rek kama tuhibbu ay yakuna maaka waaye wal tarhamul aytaam wa saxira ngeen di yërëm jirim ñi jirim dafa am solo lool ci di ko yërëm waaye di ko neexal waaye di ko seral ab xolam mu jirim naka noonu ngeen yërëm ndaw ñi yërëm ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yërmande yàlla du deñ di wàcc sama xeet li ndaw ñi ñi ngi wekk mag ñi mag di yërëm ndaw ñi waaye bokk na ci tam di joxe di joxe aji laaj nag ak miskin yi koo xam ne faqir la wala miskin la la suñ boom wërsëgalee mu nii mu bari nga mën koo joxe te la wàññi dara xanaa daf la yokk nga cay sàkk di jox ñi nga xam ne ay miskin lañu ak ay faqir sëñ Tuubaa nee na fa kullu man wafaaka littida fasluba alayhi mataral ata képp koo xam ne ñëw na ci yow di la sàkku ne na nanga ko yullil tawub may tawub may nag li muy tekk mooy nanga ko jox lu bari rek waaye nag bul yor lu bari lool nit dikk di la laaj nga cof tuuti jox ko wa kullu man wafaaka lictidaa fasbuk alayhi mataral ata naka noonu wal tansurul adima wal madina na ngeen di dimbali koo xam ne ko ñàkk la ba am ay bor ngeen di dimbali ko di ko fayal boram yi ndax bor dafa nekk lu réeri lu mat a bàyyi xel ci jullit bi eh, ak yi nga xam ne moom la ko moom la ko mën gàllankoor yëpp ak di dimbali ki nga xam ne dafa ñàkk ci di ko ci zekare moo gën waaye di ko ci ak wéet ak ak wéetaliku te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala tax waaye ruddol mazalima ilal arbaabi xabla hudurikum la dal xisaabi tooñaange yi nga xam ne mooy dox seen diggante ak moroomi jaam ñi am sax mën naa sax ci jullit ñi waaye ku gëb jullit sax tooñ ko baaxut ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne na ngeen mooy tundiku ñaan ak kunu tooñ donte sax ak yéefar la ndax kunu tooñ moom suñu moom day nungu ñaanam ci bu gaaw kon ruddul mazalima ilal arbaabi tooñ nag du caagin ne nga jël nit ki dóor ko wala lu ko nuru waaye day yaatu jël alal la mënut caa jot ak tooñ la jëw ko ak tooñ la rambaaje ko digganteem ak keneen ak tooñ la yàq alam ak tooñ la yaatu na lool bari na lool Euh, lu jëkk ngin teew ëllëg kanam ëllëg fa kanam suñu mu leen di atte comme ni nga xamee ne noonu la Sëriñ Tuubaa wax wa yaqaun xisaas bayna jamma wa bayna xarna li adadin samma nee na ëllëg yi mën xiyaam suñu borom subhanahu wa am na maandu gu ni bàyyi ma yi nga xam ne doo nekkoon ci àddina masalan xar mi am ay béjjën ak xar mi amut ay béjjën xar am béjjën di daan xar mi amuti béjjën ngir ak tooñ ne na ëllëg yi mën xiyaam Euh, taxawal xar ma amatuñu béjjën mu amal koy béjjën mu fayu ca xar ma amuñu béjjën ba pare suñ boom subhanahu wa taala dog wax kunu tuwaaba kon wa yaqahu qisaas bayna jamma wa bayna alxarna bi adli zamma kon raddul mazalima ila al xabla hudurikum ladal xisaabi euh, bokk na ci telloo delloo tooñaange raddul mazalim suñ tuwaa jàngal ko ndax dafa am dafa am leen ci saxaaba yi moo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam def li na laajoon ndax xam ngeen euh, lan ndax xam lan mooy lan mooy euh, zizir mooy lan mooy taflis am mooy digg-digg perte am si ñeen ci ñoom ñu ko ne perte de bokk na ci ngay am sa machine jaay ba machine bi ma jeex te amu woon fii si wala sa alal jeex mooy leen digg digg perte mooy ki nga xam ne dafa dund ci àdduna doon woor doon joxe asaka doon julli doon def lu baax lu bare bare waaye bi mu faatoo ñu gis ne moom de amoon na ameel na diw ak diw ak diw ak diw amoon na àq jëw amoon na àqi bor amoon na àqi àqi rambaaj amoon na àqi sàcc ak nangam ak nangam ak nangam nangam taxawal jaam ña kenn ku ci nekk jël ay àqam ci moom ba la nga xam ne moom la amoon ci tuyaaba lépp jeex te ñi nga ñi mu ameeloon àq jeexunu ñu jël ci ñenn ci ña mu ameeloon àq ay bakkaaram di sëf ci moom mii nga xam ne moom la ameeloon àq ba mujj yanam ba lool mujj mu dem sawara kooku muy digg diggi tafliis kon loolu moo tax mu ne radul mazalima ilal arbabi qabla hudurikum la dal xisaabi ñu ngi di delloo tooñaa ngi bala ñuy teew ëllëg yoom na xef yoom na xiyam fa suñ borom mu nuy xisaab kon jullit bi war nay farlu di e, moytandiku tooñ mbokkum jullitam waaye sax tooñ keneen sax ku dul ab jullit waaye moytandiku e, jël alalam moytandiku tooñ ko waaye baril aw yiwam baril aw yiwam lool ndax ëllëg yamal xiyam bu nu jëlee ci aw yiwam jox ko ñi mu tooñ mu am loo xam ne besoin e, loolu bokk ci itam jullit bi di fexe di farlu di am ay azkar yoo xam ne xañ na àq yi nga xam te mënu koo fay wala àq yi nga xam ne xamu ko mënu ko yéene borom àq yi masalan man ngay def saay bu jullee waxtu sàngam wala su fekkee mën nga ko waxtu yëpp rek nga def ko waaw soo ko mën waxtu yëpp nga def seet wenn waxtu woo xam ne da nga ko jagleel masalan saay bu jullee nga jàng ñetti lexlaas mën na koo ëpp mën naa gën a bare mën naa bare wala nga jàng leneen wala lu ko nuru jàng ñetti lexlaas wax ni yii dinaa ko mboolem képp ku mu ameel xaq su booba loolu mën bare bare bare bare ci aq loolu na lu mat di farlu la kon rudul mazalima ila al arbabi xabla xudurikum lada al xisaabi wa yakunu ala al balai wa nicmati ilahi shakirina na ngeen di na ngeen wa taala ndax inna allaha bil balaa'i zutuha hudi li kulli abdin muminin mujahidin sëñ Tuubaa nee na uh, jigéen ji nga xam ne dafa am doomam ju ndaw ni muy jikkee jikki ba yàgg mu dem xool ko nemmeeku ko ba xam ma nga jooy wala jooyut wala war na ko toppatoo am toppatoo ko nee na la suñ di nemmeekoo ab jaamam bi gëm di jihaat ci yoonu yàlla ci ay bala kon balaa moom bu dalee ab jullit rek sant suñu xam ne moom bokk na ci jaam ñi suñu borom di nemmeeku inna allaha bil balaa iwatuhaahidi li kulli abdin muminin mujahidin waaye wa nicmati ilahi shakirina xéewal yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf la ko defal nga di ko sant ndax la in shakartum la azidannakum eh, jaam bi suñu borom daf ko defal xéewal bari loolu xéewalu nekk doomu adama ndax doom aadama wala xadd karram naa bani aadama waaye xéwaluk nekk ab jullit ndax kuntum xayru ummatin uxrijat linaas waaye yëmu ci jullit bi suñ boom xéwaluk mu ànd kenn ci niti yàlla kenn ku baax nga xam ne bu ko toppee rek ci ay jëfam ak melokaanam mën na am ëllëg ak texe loolu ak xéwal la di ko sant suñ ci xéwal yi nga xéwal ci defal ay cër juróom-ñaar am ñum ko xañ la in shakartum la azidannakum kon kon wa ni'matil ilahi shakirina waaye wattani bul xasada wal baxdaa ngir motandiku la alxasuud la yasuudu du nekk sang mukk te itam al xasad eh, alxasad kama takulu naar xatab alxasadu eh, kama takulu naar iñaan day lekk jëf ju rafet ni nga xamee ne noonu la sawara di lekk matt kon iñaan baaxut Sëriñ Tuubaa nee na isil xaasudu laysa santifa bi fadli man aasara bi tibaa ki iñaan digg digg dekk digg ñu wax ne du du digg ñu wax ne nitu yàlla ci barab sàngam ku baax koo xam ne boo ko siyaaree rek ku ci mel ni suñ Muntaxa ko fa boo ko siyaare rek nga xool ko mën naa dolliwaat ci lu bëree bëri sa wàllu diine sa wàllu addina sa wàllu ëllëg mën xiyam waaye nga toog fi nga toog di ko dégg amoo xol bu tàllee dem siyaare ko wala sax bu génnee ci lu mel ne écran nga am nga am doo am xol bu tàllee xool ko xool jëmmam ji nga xam ne boo ko xoolee mu delloo wala ci moom subhanahu wa taala ñu ne kooke la la sëñ Muntaxa di bari bari ngëneel dama ko misaal ci moom waaye yaatu na dañuy bari bari ngëneel nee na moom du am ci ngënam yooye isil hasud la la laysa santifaa bi fadli man asara bi tibaa kon ki nga nekkal ci àddina ak donte sax xam ne nekkul àddina waaye bàyyi na fi ay jeexit yoo xam ne boo ko royee boo ko toppee boo ko di jàng boo di ko fàttaliku di ci bàyyi xel mën nga am ca dara ju mag yi ëllëg yo mën xi am won ko ginnaaw sëñ Tuubaa kooku moom du jariñu ci dund gi muy dund ak waaju baax ji wala mu dund gi muy dund ak jeexite waaju baax ji mu bàyyi ginnaaw kon iñaan baaxut waaye bokk na ci albaxda moytu bañante ndax bañ benn jullit ci lu sabab yëllul bañ benn jullit ci lu sabab yëllul ndax واحبب المؤمنين للإيمان والتبغض الكافر للكفران ولو أتى إليك بالجناية ذاك وذا بالمال ذي الكفاية sëñ bi nee na na nga bëgg jullit bi ngir gëm gi mu gëm suñu borom tabaraka wa waaye na nga bañ yéefar bi ngir weddi gi mu weddi suñu borom bi daf lay tooñ yéefar bi di la sotte alal bu mu tee la jullit bi gënal yéefar be wa xbibil muminina lil imaani wal tubghital kaafiri kufraani waaye bokk na ca suxriyatan wal wal faq wa suxriyatan wa mooy tindiku reetaane ndax reetaane reetaane reetaane baaxut reetaane bi xasdi zammi ahlul ilmi suxritin zamma feeñal màggu nit ki jublu ca ŋàññi ko masal nit ki gàtt nga naa ko njiwa gàttaayam bi fekk daa njool wala mu njool nga naa nga naa dégg la gàttaayam bi wala mu ñuul nga naa ko xeesaayam wala mu xees nga naa ko ñuulaayam mu tuut ngay tudde réyam wala mooy feeñal màggu nit ki jublu ca ŋàññi dëgg la ak yére mi gudd yi te yére yi gàtt wala dëgg la ak yére mi gàtt yi te yére yi gudd wala yére yi ñaaw yi te rafet Eh, wala yére yi rafet te yére ñaaw ne na ahlul ilmi suxyatin sàmma loolu borom xam-xam ne loolu reetaan eh, kon reetaane reetaane baaxut ci benn jullit wal faqri ak ndamu ndamu baaxut ndamu bokk na ci li nga xam ne yellut ci ab jullit bi ndax bu damo rek day mel dafa damu ci kanam borom te li mu am lépp ak li mu mën lépp suñu borom moo ko jox moo ko manal kon yellut ci benn jullit muy damu naka noonu ak nay nay baaxul ndax am nay Sëriñ Tuubaa wax ne na kuy sori aljana la kuy sori yàlla la ay kuy jege sawara la loolu mooy loolu mooy safaanu ki tabe ki tabe day jege aljana te jege suñu borom jege jege nit yu baax ñi waaye sori lool sawara kon nay baaxul bokk na ci nay day alak jullit bi ndax am na xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yéefar bi nga xam ne moom moo tabe moo gën a suñu borom bi nay loolu nag lu mat a jara dégg la kon nay baaxut naka noonu wa awqimu salaata fil jamaa miltum karamatan maa shafaa ngeen di taxawee julli yi ci mbooloo mi ci mbooloo wax nañ ko ci jotaay yi passé julli kenn ak julli mbooloo julli mbooloo rawe na ko ñaar fukki daraja ak juróom wala ñaar fukki daraja ak juróom ñaar ci ñaari riwaaya naka noonu ki julli ji ci mbooloo mi bu génnee këram wala génn palaasam wala génne ci barab bi muy jullee ji ba jekk di julli ji jéego yi muy jéggi ba kenn muy àgg ca jàkk ja wala ca mbooloo ma dañ koy bindal aw yiw di ko faral aw ñaw tiif kon julli ci mbooloo lu am solo la wa aqimu salaata fil jamaa niltum karamatan ma shafaa kon su ngeen saxalee di julli ci mbooloo ma suñ borom tabaraka wa taala dana leen defal ay karama dana leen defal ashafaa te mooy am ram ëllëg yawmal qiyaam kon dafa mel ne foofu nañ taxaw ci jotaay bi insha allah taala bu beneen yoon ñaan defal ak dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu أما أبو حفص الفاروق سيدنا fa fi masayaahu laa yartaabu tayyaaru wa huwa al-mutimmu dhawi al-islaami yawma adaa miima bi kaana lil-islaami izhaaru wallaahu farraqa bil-faaruqi sayyidinaa al-haqqa min baatilin abdathu fujjaaru